Mbakke mi ngi lay siyaare. di yeesal gi. nee di yeesal nag njureel gi. ak taalibe gi ak taalibe gi. di yeesaluk cant. di yeesaluk cant. jëmee ci njabootu xaadimu rasul. jëmee ci njabootu xaadimu rasul gépp. bis bii bis bu rëy la ci ñun. nee bis bii bis bu rëy ci ñoom. ndax. nee ndax. bis ba ñuy teg xeer wi fii. nee bis ba ñuy xeer wi fii. boko ko Serigne Saliou mébétee. ba ko Serigne Saliou mébétee. ñu jëkk koo lamb. ñu jëkk koo lamb. mu am ndox mu am ndox. ñu lambaat ko ñu lambaat ko. mu def ca la mu cay def mu def ca la mu cay def. ñu tàmbali ko. nee ñu tàmbali ko. sama baay fa taxawoon. nee baay ma fa taxawoon. alaaji Basiru Diagne alaaji Basiru Diagne Marème Diop. ak baay Mouhamadou Lamine Baara. ak baay Mouhamadou Lamine Baara. ak président Abdoulaye Wade ak président Abdoulaye Wade. mu def ca la mu ca def lépp. nee mu def ca la mu ca def lépp. sëñ Sidil Mokhtar. nee Cheikh Sidil Mokhtar. sang bu tedd boobule. sang bu tedd boobule. def ca la mu ca def lépp. def ca la mu ca def lépp. ba yàlla yemale ko ca la mu ca war a def. mais ba yàlla yemale ko ca la ca war a def. sunu borom namm nga agsi. ne sunu borom namm nga yegsi. ci ndimbalam. ci ndimbalam. ak yërmandeem. ak yërmandeem. nga indi mbégte mi nag. nga indi mbégte mi nag. ndax Cheikh Al Bachir. ndax Cheikh loolu day. ne loolu day. koo gis. koo gis. ak koo gisul. ak koo gisul. xolam sedd na guy. xolam sedd na guy. te yéene nañu la ko. te yéene nañu la ko nag. ndax yàlla moo def. ndax yàlla moo def. lépp lépp. da nga koo topp. da nga koo topp. ba sunu borom teg ko say. ba sunu borom teg ko say loxo. ak yërmande. ak yërmande. ak ku jàppale. ak ku jàppale. ak yéene. ak yéene. ndakaaru nag. nee ndakaaru nag. bu nu yaboon ni ci pays yu sëñ Touba yi la bokk. ne bu ñu yaboon ni tey ci pays yu sëñ Touba yi la bokk. ndax sëñ Touba gis na fi soxna jaara. ndax sëñ Touba gis na fii soxna jaaratullaahi sëñ Touba gis na fi Seydina Mohamed. sëñ Touba gis na fi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. baatin boobu nag. ne baatin boobu nag. moo dekki tey. moo dekki tey. ci fii ci fii. ñu koy wax Masalikul ñu koy wax Masalikul Jinaan. magi Ndakaaru. ne magi Ndakaaru. bërëb dañu njott baatin bi rek. dañoo njott baatin bi rek. waaye sëñ Touba nag. waaye sëñ Touba nag. ci ndimbalam. ci ndimbalam. moo nu ko jëmmal. moo nu ko jëmmal. moo nu ko feeñalal. ñu ngi ñaan sëriñ bi. nee ñu ngi lay ñaan sëriñ bi. nga ñaan sa borom. nga ñaan sa borom. ndax njort nanu ni. ndax njort nanu ni. juboo ngaak moom. juboo nga ak moom. bu yomal xiyaamee. bu yomal xiyaamee. yal na bokk ci pays yi ñuy na bokk ci pays yi ñuy ramoo. nee na lépp loo xam ne war na ci bis bi rek mel na na def nga ko ba noppi nee na lépp luñ ci war a wax it wax nga ko lépp luñ ci war a taxawee it taxawee nga ko nee na noonu rek la demee nee na xolam sedd na guy xelam it dal na bu baax. sunu yaakaar dolliku na bu baax yaakaaram dolliku na bu baax. noo ngi sant di gërëm nee na mi ngi sant di gërëm bu baax.